jërë ngeen jëf mbokk internet yi di suivre AFT TV ñu dellu si ak yéen nag ci famille sénégalaise tey nag dañ mooy Marlo mel ne nag olof day wax na nag li nga xam ne mooy jëfandikoo sa xel ak nag a yàkkamti nag mën naa lijjanti li nga xam ne mooy problème yu bëree bëri bëri nag bu fekkente ne dangaa jiital sa xel ba pare te yàkkamti woon nag di xool li nga xam ne sa xel may na la ko nga di ko def di ko segg ndànk-ndànk nag di dox nag ku nekk xam na ne sa àdduna mën naa lijjanti ko te benn problème mën nga ko bañ a am Lamine nag boo xoolee depuis nag bi nga xamee ne ñibbisi na jógee jógee Europe ñëw ba léegi nag ci série bi boo xoolee épisodes yi nga xam ne tourné nañ ko yëpp daanaka moom mooy centre bi te boo dee xool lépp dafa utiliser intelligence ak ak euh, nga xam ne mooy patience maanaam daal patience daal ñàkk a yàkkamti ak daal utiliser xelam loolu la def ndax lépp loo xamee wax nañ ko ko muy loo xam ne lu normalul la ci jabaram wala ci entourage kenn koo xam ne ko ko jege la li muy def mooy ne teg xool ba xam loolu noonu yenn na maanaam wala yenn maanaam li nga xam ne moom mooy ay investigation jël ay propre moyens boo xam maanaam xalaatal boppam utiliser utiliser xelam nag te bañ a yàkkamti nag bañ a dal ci kaw kenn bañ wax kenn loo xam ne lu ko naqar la képp koo xam ne wax naa ak yow rek te mbir mi concerné li muy def mooy sourire la wetal kanamam ree bu ko defee nag ne la loolu garaawul léegi daal nañ ko jéem a lijjanti onze heures dinaa ko seere dinaa ko lijjanti ba ci garaaw nga xam ne moom moo ñëwoon pour ñëw leeralal ko li nga xam ne moom la yaayam ak soxna ba door teg neen li mu ko wax moom mooy dinaa ko seere yow defal liñ la wax rek léegi man li ci des dinaa ko seere xam naa ni nga xam ne moom laa koy def Marlo nag moom dañoo gis ne léegi dafa mat ak ñor nag gën a jox cëram bu baax baax di diisoo moom di déglu ay xalaatam bu baax nag comme ça nag ni nga xam ne noonu la ko bañ def léegi nag da dee xool dafa mel ne jox na Mariatu cëram bu baax baax te tamit ba pare ci ay décision am lépp loo xam ne mi koy jël Euh, daf ciy wane ak saas maanaam day wane ne daal léegi daal mu ngi ñor si ndànk-ndànk mi ngi wax bu ngi mi xelam bu baax a baax ni nga xam ne noonu la ko soxna xam ne mi ngi koy xam ne mi ngi koy ne mi ngi koy wax ne ko maanaam yow nag na nga xam ne fas naa la mais ci samay responsabilité nga nekk lépp loo xam ne dal na la wala xew na ci yow ci sama responsabilité la nekk kon sooy dem malgré te seqatuñ dara man ak yow waruma laa sax contrôler mais war na maa xam lan mooy xew je parce que ci sama kon man maa war war a toppatoo Lamine nag ku nekk xam na ne liñ ko wax ci garab mi ngi bàyyi ay sourire ci ay lefram daal mi ngi jàkkaarloog jabaram di ko reetaan di siñ muy gis ay bëñam di ko xoox depuis bi nga xamee ne da bëgg na nag plan bi marché complètement la doog a dal ci kaw jabaram te bopp nag xam na ne yaayam ak soxna bu tóor ngi koy dégg bu dalee ci seen kaw dinañ xam ne nag di bu daree ki nga xam ne moom mooy nag ngóone dinañ ne ah ña ngay xuloo def nangam ak nangam te effectivement noonu la demee bu defee nag mu mën leen a convoqué na ko Mariétu ba ba léegi mi ko ciy laaj te liñ koy tàggu nag ne ko dooma laaj la xam lan laaj doy xaalis bi may jël mu ne ko naa loo ndaam nag sa sa nag yaa ko moom loo ci def rek noonu la mu ne ko nag moom mooy nag <clears throat> sa wujju moom laa koy yëti dama koy seeti ah, moom neex na ma ndax ki nga xam ne soxna Alima la daal moom laa bëgg a seeti moom laa bëgg a dem yóbbul deux millions yi nii pour seet ko léegi nag loolu mooy responsabilité loolu mooy jox ko